Merci beaucoup à la KBMR TV, merci, bonsoir euh, la famille, bienvenue KBMR TV, première scène digitale du département. Encore, euh, je suis Martha Redjei et je suis ravi de vous retrouver de votre rubrique Esport euh, Actu Navetan. Actu Navetan, vous voyez les gars, donc première match bi, Nekon lundi, le 18 tey lundi le 19 août à partir de 18h la ñu le premier match bi coup d'envoi Donc on ci Gunter Aïssé, Espérance ak ASC Jamono waaw bi ñu fubalee nag euh, le premier première mi-temps bi la ñu wure di fubal 45 minutes ndam demul ndam dikkul kenn dugalul sa morom après nag bi du ci vestiaire yi génnaat ci football, ñu euh, minutes 61 minutes ci le ASC Espérance euh, Aïssé, Jamono dugal première bibi. mais de leen côté, avant avant première mi-temps ci première mi-temps Espérance a une penalty daal di gardien bi tout ça avec des occasions des ballons depuis tout ça nous ratez. mais bi est ñëwee série. vestiaire yi 10 minutes ci la ici, jamono retrouver filet Google, Un 1 but à 0 ñu continuer football avec des occasions des temps forts tout ça pendant 75 minutes de jeu ci la IC Espérance égalisé oui IC Espérance égalisé Nous un but partout nous football li décimations, 15 minutes du des.

waaw. alors euh, man gis nañ ci côté physique euh, joueur des nan entraînement moo bëri wala euh, gisante bi moo bëri. waaw par rapport ak loolu tamit mooy xam nga comme ay mercenaires lañ. te bon comme li ñuy daje di football xawul metti loolu yëpp feeñ na ci mais malgré comme première journée la ñàkkul ni dañ defaraat bu ñu ñëwee ñu gisaat ñu ci beneen xar kanam. espérance mu ñëw am un point. lan nga gis ni war nga ko a defaraat euh, xam nga par rapport amatul bu ndaw moom amatul parce que fi mu ne équipe ñoo yam même pied d'égalité mais bu ñu ñëwaatee danañu wanaat beneen xar kalam bu bokkut ak boo xalaatee seen kanam nan nan nga koy préparé. waaw dañ koy pare rek que match yëpp match la rek match yëpp mënul dépasser loolu match defaraat bloc bi gis nañ ci ay quelques manquements mais dinañ fexe ba bu ñu ñëwaatee li ñu woon du feeñ ci bii match ñu génn. merci jërëjëf. ñu lay fay baax a baax. football ngeen match bi di seen rek espérance ñu am penalty euh, la technique euh, nan nga gis match bi. voilà match bu métti la comme ni ngeen ko gisee ñëpp jël nañ match boo xam ne match bu métti la parce que adversaire bi nga doon joué moom gis na la nga joué match amical te yow gisoo ko mu joué match amical donc da lay préparé donc ba ñuy ñëw ñun xam nañ ne match bi du yomb.

bi si diggante ASC euh, Jamono de Kebemer. Modon don daje ak ASC Espérance de Kebemer. comme ni leen ko waxé match bi euh, ça a été bien déroulé ci diganté ñaari ASC yooyu match bi c'était extraordinaire mais nul le mujjé ku nek duggal sama rom ci biir match bi aussi gis nañ euh, ASC Espérance amone nañ ci penalty mais dañ ko mujj raté mu don match bo xamni ni won na parce que ken du maye sama rom dara ñaari ASC yu ndaw la ñom ñoo génn tay di féliciter les

mais loolu euh, je trouve ça euh, anormal parce que boy xol amna ño xamni tay ñu ngi nek euh, extérieur di ay doomi Kébémer am ño xamni ñu ngi fi au Sénégal di ay doomu Kébémer machi yi am lu bari lu mën leen jaral bok ci quartier yi donc yooyu yëpp aussi mën nañ xol nu ñu waxtaanee ak les la presse waxtaan ak ñi nga xamni ñom ñoom ñoo yore internet yi ñu waxtaan ak ñom jema fexé nuñ ko jallalé yakarna lolu am solo la allez merci ma ngi béggee wa Kébémer TV allez bye bye Aïcha merci beaucoup toujours actuellement, les gars mi ami internautes yéen ñii seetaan Kébémer TV donc premier match bi mi ngi noonu jeex na war nañ leen ko ñu nekkoon euh, Espérance jamono ñu tembo ku nekk à euh, Maxi donc euh, Aïcha Liberté est beaucoup Khalat, 20h coup d'envoi bi la démarré nous football à euh, bah, presque 15 euh, minutes 2 euh, heures. ci la beaucoup beaucoup Dougal, premier but. oui IC Boko Khalat, Dougal, premier but. après nous la ñu continuer wure wi ñoom ñaar football 45 minutes de heures. Ici Boko Khalat am benn Liberté am 0 nous ñu ci vestiaire football presque 65 minutes de heures, ci la Liberté retrouver filet yi égalisé mu un but partout ñu football 90 minutes ndam demul ndam ci ñaari équipe yu Liberté li xal docteur Issa ci journée réaction coach Liberté ak réaction

Bon, d'une part, hein, d'une part, parce que nous, euh, les uns jouent, pratiquement collectivement tous les jours. Donc il y a des gens qui nous intégrés encore, groupe, bon, nous, nous, nous, quoi. de nous xaw alors euh, pour le nous na préparé euh, match machine. donc nous l'ai joué match par match joué hein. j'ai récupéré un point là-bas donc il match aussi nous joué joué match, au ci ci faible gis donc joué quoi.

ñoom ñoo mujj a égaliser si deuxième mi-temps bi. ñu euh, xam ne ci euh, dernier donc loolu moo waral ñàkk déggoo bi. waaw waaw waaw parce que boo xoolee tamit entraîné wuñu collectivement parce que dañoo am ay jours yoo xam ne dañoo retard moo tax xam physique bi xaw a feeñ tuuti mais incha allah dinañ si kanam tuuti. alors a serré donc ngeen ñëw euh, am benn point. waaw gën a redoubler effort rek gën a entraîné gën a waajal yeneen match yi incha allah. alors ñu tamit attaque bi tamit faible. waaw sunu attaque sunu attaquant de pointe bi sax gis nga dafa tuuti en plus nga gars yi ni ko doon fiiree xam nga mooy loolu mais incha allah loolu yëpp dinañ si travail te gëm bu ñu des na moom parce que tamit am na am ay am na ñaari jours yoo xam ne ñëwuñu mais incha loolu yëpp dinañ si travail incha allah waaw ok merci. waaw maa lay nuyu. donc teel ngaa jël bii sa diggante ak euh, boo xalaat euh, nan nga nan nga réparé bu ñëwaat éducation. Euh, waaw bon d' rek mooy que match bi boo leen seetloo euh, am trois occasions successives malheureusement dañ ko dañ ko raté sur une demi occasion équipe adverse bi duggal ko loolu nak ay de jeu quoi ça arrive dans le football. donc non, lañ démé bo mi-temps on a su rectifier faire des changements ci lañ égaliser quoi. alors vous mel le premier mi-temps da nga heures. donc euh, comme deuxième mi-temps euh, non pourtant ce n'était pas des consignes. peut-être nous avons joué à leur manière parce que boo leen seetloo on jouait mais avons joué sur une biir zone nanguwuñu progresser du jouer à toi à moi bon amul ben profondeur lolou mo indi bon occasion yi bariwul par moment la rek biñ ko amé début après équipe bi dafa téewu deuxième mi-temps mais deuxième mi-temps bi dañ leena wax ne euh, jeu bi baax na mais dañ koy jouer di progresser. ñu gis ne euh, ci flanc yi nga gëna jouer. Mm, waaw dafa xaw a wala. bon euh, ay la rek parce que souvent les premiers matchs bon pour nga trouver cette équipe day xaw difficile. des fois mën nga yaakaar dara à l'entraînement boo ñëwee match doo ko gis donc ci match yi rek ngay gisee failles yi après réparer ko quoi. mu mel ni euh, poule bi yow ak boo xalaat yéen yéenay favori yi euh, te euh, te poule bi nekk na poule bu xaw dëgër nan ngay préparer pour mën a génn. Mm, waaw non man favori moom bon du ma ko d'accord parce que favori moom pour man boo joué ba pare la mais avant le match favori amul foofu parce que on disait que ne Liberté day door bokk xalaa on a fait un but partout donc favori pour moi euh, c'est sur le terrain Il y a quoi imposer jouer gagner mais favori moi, à fi. Euh, euh, bon pour moi c'est l'attaque c'est l'attaque Les ñu de lañ ah, manque de réalisme loolu le la là, merci ok. Alba Alba. Alba. bem capitão. Tá conseguindo. Ele aí pegou de barata. merci beaucoup euh, mu nekkoon réaction ñaari coach yi donc euh, ginaaw bi ngeen déglu réaction ay coach su ASC Jamono ak coach su euh, euh, Espérance donc la famille on se donne rendez-vous après Magal comme niñu len dit, ko waxé won rek dañ koy poser ba après Magal le 29 inch'allah lañ koy reprendre IC Yakar gi Espoir Inch'Allah le 29 donc lolu moy li région bi jotona a xew ci journée tay bi mu nekkoon première heure diggante Espérance. Lens ak jamono ndam demul ndam de nos tembo un but partout deuxième heure bi Boko ASC Aïsé aïsé Liberté bataille dame de demul ndam nous ñoom ñaar de tembo kon ta journée nulle journée nulle donc euh, on se donne rendez-vous à la semaine à la prochaine le 29 inchallah pour euh, une nouvelle édition Actu Navétane d'ici la vivez pleinement votre passion pour le sport et soutenez votre équipe locale merci beaucoup Kébémer TV di jaajëfal Mori Mara mi nekkoon ci xarale gi di DJ Marteau la moo nekkoon ci waxukaay gi ñu ngi